ak ma ngi lay nuyu ma ngi lay ziar beureul rek rek waccel tempérament bi tout rek non non non non du tout amul ben problème parce que mbeur la même bu fekkone ni que du sa mas man man nga dekk ma nga ñak ma dekk man duma tuddu ken c'est normal ñom fa fi ñu tollu bam fay tollu c'est comme ça dañ leen koy nangul len rek la di ñawlu pa bu fal mu japp loxom ba ci mom dama demal dekk lo rek la ci ñawlu ñawlu ma ci lenen pa bu fal bu sama combat

ku ma lam booleel bu jaadoo damay bëree ak yow. mais nag damaa lii aussi baax na parce que euh, demoon nañu maanaam tey gis nañ ni que tey maanaam soppe tey bi nga duggee stade bi ñëpp a loolu am na lu mu signifié kon na mën nañ sa combat. lépp lépp sant yàlla la. lépp sant yàlla la ñun ay sportif la ñu neewatuñu xale ci làmb ji. donc ñu naan def nga quinze ans seize ans de carrière bon mën naa ne ay grand lañ ci làmb ji léegi dañ ko bëgg a yoon moo tax ñu bëgg ko jaarloo fii.

voilà muy noonu. jaajëf Tapha. non tooñu ma. lambu la rek tooñu ma de. keroog def nga ko Tapha Tine yoo. non non defal naa nga man tooñu ma. lamb bu doon woon lamb du ma dëkk n'est-ce pas mais tooñu lamb moo ñu moo ñu boole ma ñëw dëkk ka la rek bu meree nag moom la concerné man sama yoon ne aussi lamb moom bi mu génnee dafa ni nangul sax tudd sa tur dafa ni Pa Odou tooñ ndax dafa di bàkk Pa Odou Fall sa loxo ne la koma par wala koy togn pap dou fall pap dou fall ma nga japp ci loxam yobou nga ba ci mom nek suñu combat da wara ne ma ñew dekk ga bu mu togn pap dou fall ok pap dou fall ma nga fekk fi jël ko yobou ga lol la mais lamb la lamb ñu saay saay maa ko ëpp sport bu may def nest maa ngi si beneen man mais la am naa droit ñëw dëkk ko lamb la lamb ñu boole. mais ku la jox avance su tabaatee rek rek sa digganteeg yàlla nga fanaanoo ko. bi muy wax naan tax sirib bu bu sama combat du ma wax ay tax sirib nga Balla Gaye da kay noon nin bat man xam nga lu ma koy indil waa Suntoor yabay xam nga waa Suntoor yi yabay loolu laa koy indil voilà. faalewu ma punkal yàlla sunu borom kenn ku ne daa am lu la may si mbëri man yàlla sunu borom dama moo ñaale mën a bëri punkal te moom si moom laa koy wane pour laa kay gën a wane na ñëw ñi bëree làmbu la jéem